fees na dell ak njariñ ci ni ma ko waxe woon rek li nga xamante ne moo di xidma ni mu amee importance ci bépp doomu aadama waaye rawatina kuréel gi ñu nekk muy Touba ci kanam mu indi li nga xamante ne àdduna bépp ko bokk te doomu aadama yi fuñ mën a nekk rek am na fa ñoo xamante ni dañoo féetewoo ma moo xam ay jullit lañ moo xam ñu dul ay jullit kon baatub ma baatub arab la waaye li am solo mooy la muy tekki li muy tekki nag leeral nañu ko mooy doxinu Touba ca kanam Touba ca kanam mooy dëgg-dëggi ma wax nañu gaañu baax ñi tamit ni ñu yittewoo loolu di xitma ba wax ñu sëriñ bu mag bi ni nga xamante ni noonu la ci doon tàggate ñi mu doon àndal ba ku fa jóge ci moom rek ma moom nga defoon muy sab liggéey ni nga xamee ni moom léppam ma la kon sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di ñaan su boroom defal ñu dégg ak topp ci waxtaan wi di jox kàddu gi sëriñ Mor Sourang mel na ni baatub xidma boobu bari na lool lu muy ñëw ci mbindum sëriñ bi bari na lum si ñëw sëriñ bet ku ne xam na ni mbiram yëpp xidma la ba turam wi nga xamante ni naa wax ni moom la tànn suñu borom tànnal ko ko muy xaadimu rasul ku ne xam na ni lu lëkkaloo la ak xidma kon sëñ Mor dana ñëw gën a yaatal ci diggante sëriñ bi ak xidma waaye diggante taalibe yi tamit ak xidma yaakaar naa ne misaal bi mu joxe ci Touba ca kanam nga xam ne boo jëlee jëmmi Touba ca kanam léeg-léeg dafay am benn baat boo xam ne dangay am jafe-jafe pour définir ko waaye am am naa ay action yoo xam ne moom moom ngay jël rek moomale ko baat boobu ci la dégg gi di gën a yombee ci kii ko bëgg a xam ci misaal sëriñ Modou Lamine Diop Dagana bi muy définir istiqaama muy baat boo xam ne naan sax ci njub waaye mu baat boo xam mën nañ cee saraa lu bari dafa wax ne léegi boo bëggee comprendre ba baatu istiqaama dangay fexe ba xam dunduk maam Thierno borom Daaru Muxti lu mel noonu la sëñ Cheikhouna def ci diggante Touba ca kanam ak baatu xidma euh, fi ñu waroon a tàmbalee mooy leeral baat boobu kon léegi moom sëñ Cheikhouna lim ci leeral doy na dañu dikk ci diggante sëriñ bi ak ma ñim àndaloon naka la leen doon yaree ci xidma waaye moom naka la doon xidma ba amee tur bi nga xam ne turam bi gën a siiw ci baatub xidma la jóge ndax xidma fi mu ne baatub arab la waaye murid yi dañ ko jël moomale ko seen bopp liñ koy jëfandikoo dafa bari ba soxlaatul buñ ko waxee di ko tekk muy niru baatub arab waaye dafa mel ne léegi baatub wolof la ngir niñ koy jëfandikoo moom mooy taxaw taxawaayu kii def xidma bi ki nga xam ne mooy def xidma bi mooy jëf ji ki koy def moom mooy tudd xaadim kon Serigne Touba moom ci boppam turam wi ko yàlla tuddee def ko ko mu wax ne sammaytani qataan bi abdikal xadim maanaam turam woowu ci boppam ci xidma la jógee kon baat la bu murid yi war di e, teg ci taabal ji di ko waxtaane bu baax ngir mën a yokk seen e, pësteef dinañu wax baatu xidma ban mawqif maanaam ban wàccuwaay la am ci ak murit danañu wax jën jeexit la xidma mën a indi maanaam yoonu murit li ñuy wooye xidma jën jeexit la ci def ak ci fànn yëpp ñu tëje ko njariñ yi nga xam ne xidma am na ko ñu indi ci ay référence ci ñi doon liggéeyal Serigne eh, li liñ ci jariñoo ak bëy ji nga xam ne Serigne Touba moo ko waxal boppam jëme ko ci ku koy liggéeyal mbokk yi yoonu murit buñ ko dee seet te sukkandiku ci ni ko boroom binde dafa am gouverneuru Ndar bu bindoon Serigne Touba ab bataaxel def ca fukki laaj ak juróom-ñett laaj bi ca jiitu mooy sa yoon wii nga nekk ak taalibe yi lan mooy cëslaay yi maanaam lan mooy fondement yoonu murit loolu mooy laaj bi ci jiitu Sëriñ Tuubaa tontu ba ci jiitu ci laaj boobu da ko wax ne ko sama tariqa yi maa ngi ko fonde maa ngi ko sose ci imaan gu tegu ci xam-xamu tawxiid ak ci islaam gu tegu ci xam-xamu fiq ak ci ihsaan gu tegu ci xam-xamu tasawuf ne ko lii mooy cëslaay yoon wi nga mën a déggee foofu ne kon sëriñ Touba sosut lu bees waaye daa ñëw ngir yeesal ndax ponk yi mu ko wax ne ko moo tënk sama yoon wi ponk yooyu ci boppam mooy ponk lislaam waaye nag ci biirum njàngaleem mu muy jëfandikoo ñetti baat ci am mbindam saa su nekk nga xam ne ñetti baat yooyu leen jàpp ne maanaam yoon wi bu lee dee doon fondement bi ñetti baat yooyu leen jàpp ne ñooy kenn yi maanaam ñooy poto yi nga xam ne ñoo téye yoon wi ñetti baat yooyu mën nañoo jël wenn bayit woo xam ne dajale na ko ci doon dénk menn mag dane ko alayka bil ilmi wal amali ma ta'addubin murafiqan shaykhan jamaa maa ngi lay dénk xam-xam maa ngi lay dénk ngay jëfe xam-xam maa ngi lay dénk nga am ay teggin muy xam-xam ak jëfe xam-xam ak ay teggin di ñetti yoo xam ne néewaane na lool nga gis mbindum sëriñ bi te tegaliwu ca ñetti yooyu bindi ko rawatina boo demee ci euh, téere bu ñuy wax mañ moo at suxura nga xam ne dañ caa dajale ay ndénkaanam ak ay tontom ci ñetti baat yooyu nag bu ñu weesoo xam-xam dañuy jël jëf muy ala amal al amalu saalih ci biir al jëf ci la ma nekk ndax fi mu ne ni jëf ci yoonu murit baatub jëf man nga ko séddale ñetti xaaj muy jaamu yàlla ak ma ak fàggulu lew léeg-léeg sax nga gis murit yi wari fàggulu lew ñu dugal ko ci biir ma maanaam koo xam ne day dem place am di liggéey nga ne ko doon naa la woo jutuma la wala wala ñëwoon naa sa kër mu ne damaa xidma ji woon fekk loola loola mu defoon benn pàcc la ci biir moo xidma ñoo bokk benn catégorie boo xam ne fa lañ nekk ci biir njàngalem sëriñ bi ak principe yi nga xam ne moom la sëriñ bi tege yoon wi kon baatub xidma loolu mooy wàccuwaayam ci yoonu murit sëñ Modou Lamine Diop Dagana nee ne sëriñ Touba bi mu ànd taalibe yi di leen jàngal ba yàgg sallallahu alayhi wa sallam da koo dikkal ne ko rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihim bi dars dane ko yaral sa taalibe yi ci yitte ju kawe waaye bu yamati ci jàngal leen kese loolu mooy ndigal li yitte ju kawe jooju nag di baat boo xam ne dafa lëm lu baree baree baree bari ba neexut leeral waaye xidma doon benn pàcc ci biir yitte ju kawe ndax sëñ Modou Lamine ci biir nee lan moo wutale li sëñ Tuubaa nekkoon bi mu wootee yoonu murit ak bi mu wootee yoonu murit lim nekk maanaam bi fi sëñ Mor Anta Sali jógee sëriñ bi des ceeg ndongo yi amagul ndigalul woote yoonu murit lim nekkoon lum doon ak bi nga xamee ni sëriñ bi am na ndigalul rab ashaabu bil himmati lim nekk léegi mook taalibe yi lum doon différence bi mooy lam nekkoon bu njëkk da tëral nit ki ay téere nit ki bu jàngee ba noppi mën naa am mu jub mën naa am du jub bu mu jubi nag mooy day jàngal nit ki ba noppi di def ci jëmmam lam koy jàngal nga xam ne day amee observation bi ci boppam bu nit ki jàngee day fexe ba bu fekkee nit ki tey ji bindam dafa jàng ñu ne ko iñaan baaxut rëy baaxut nay baaxut sëñ Tuubaa ci boppam day fexe ba ñett yooyu génn ci ndongo boobu muy jàngal lool saa bu ko jàngalee ba ne ko jikko ju rafet lu baax la ndax sallallahu alayhi wa sallam da ko amee woon day suuxat ci jëmm jooju muy jàngal mu fexe ba amee jikko ju rafet lu bari loolu moo amoon njaareem amoon euh, amoon faneen ak faneen su ko defee nag yooyu nga xam ne sëriñ bi mi ñu ciy dimbali ba ci xeetu liggéeyin murid yi ci boppam wàllu wàllu wàllu identité am nañ liggéeyin wu ñu wooyee système bawal bawal fu mel ne Ndakaaroo noonu lañ koy wooyee buñ ne bawal bawal ci nit ki mooy ki nga xam ne dafa nangoo liggéey te du yàq te loolu mooy njàngaleem sëñ Touba léegi nag ñi ko andi euh, ndakaaro baa ñu tasaare ko ci réew mi xëy na bawal lañ siiwee waaye ñooñu mbooloo lañ moo xam ne sëñ Touba moo leen woo ñaanal leen wax leen nan la naka war a liggéey ak fan lañ war a liggéeyee ji ñu daal di jóg départ ñooñu ñoo créé Pakolambaay ñoo créé barab yu bare bari yoo xam ne ni ñu ngi fay ñu ngi fay ràññee bawol bawol fekk système la boo xam système murid la bu sëñ Touba dénkaane yoon jox leen ko ñu di ko liggéeyee loola di law nag ba nit ñi amuñu amuñu tur wuñ ko mën a wooyee ñu di ko wooyee système bawol bawol loolu ci identité murid la bokk maanaam li gën a waral loolu sax euh, jom jën ci am mooy bu njëkk liggéey bi gën a fees mooy nekk fonction publique te booba yoonu murid demee na noo xam ne nii euh, yaataluñ leen woon ci buntu boobu saa su ne rek da ngay gis ne mu mel ne dañ lay xeeb wala mu mel ne dañ laa euh, bàyyi ginnaaw toujours da lay yokk jom da nga ciy jàngat ne toujours murid yi ba ci jom ji Touba ci kanam def assainissement yu mel noonu koy waral saa boo yëgee ne dañ laa xeeb bàyyi nañ la rek day tax nga am jom loolu bokk na ci li ñu Sëñ Touba dimbalee léegi nag xit xitma bi nga xam ne moo am ba loolu di law ba suñu jamono ji dafa jaar ci mag ñi nga xam ne ñoom la yar ndax Serigne Euh, dafa xiirtaloon mag ñi ci ñu nangoo liggéey da leen xiirtaloon ci nangu ñu nangoo jaamu yàlla waaye liggéey boobu da cee boole woon di leen sancloo ay dëkk yoo xam ne moom lañuy sanc waaye buñ ko sancee ba noppi dëkk ya ñoom dañ fay bay la ñuy bay di dellu si di dellu siwaat ci njaboot gi waaye di dellu siwaat ci njariñal njariñal réew mi kon loolu ma moo tax mbir moo tax mbir yi yegg foofu mu yar ci njabootu boppam ñoom ñu sanc ay dëkk ba seenu njabootu bopp ñoom fu ñu toll ñu ngi sanc ay dëkk ba léegi nii kon liggéeyu ma boobu law gi muy law saa su ne loolu mooy massifier yoon yi mooy gën a yaatal yoon wi mooy gën a yokk yoon wi ci euh, waxtu wu nekk bokk na sax ci identité yi ma doon lim boo xam dama ko fàtte fi ne àdduna bépp ku nekk mën naa am réew yi niroo ay waaye ak nodd ak nodd noddug murit kenn du ko jaawale kenn nodd ci àdduna bi fim mu ne noddug murit ba ci sunu noddu bopp dañ ko am bindiinu alxuraan bindiinu alxuraan dañ ko amal suñu bopp boo xam ne ni saa boo ko kaamil bi ngay xam ne murid ya ko bind te ma wax leen leen réewum senegal ba réew mi daj amul benn maktaba bàyyi sëriñ mi ay téere lay jaay benn bibliothèque buñ teg kaamilu olof kaamilu sénégalais di ko jaay bu am murid bind amul loolu ci liggéeyu Sëñ Tuubaa la bokk kon dafay mbir yoo xam ne dafa tasaaroo ci suñu biir ak miin guñ ko miin ba yéen léeg-léeg duñ ci dellu si waaye lu mat a jàpp la lu mat a fonk la te loolu lépp liggéey boobu li ko indi ma rek moo ko fi indi ndax euh, ku mel ne sëñ Mourou Moustapha ci misaal xoolal jom ak fulla jim amoon bi fi sëñ Tuubaa jógee mënees naa joxe misaal ci jëmmu jooju ci wàllu ma bu baax a baax ak wàllu jom gis na Cheikh Moustapha 1945 1927 bi fi sëriñ bi jóge li ko gàllankooroon pour mu wéyale liggéeyu sëñ bi lu bëree bëri la ba ca jiitu mooy Cheikh Moustapha bi mu jël yoona mu murit mag ñi ko wëy si ñee ca nekk ay baayam ay nijaayam ay magam ay sëriñ daaram ñoo ñee ca nekk te ñu ko ci ñii fekk na nga bëri barke lool fekk na nga bëri mbooloo fekk na nga bëri dëkk fekk na nga bari alal te ba bañu topp sëñ Tuubaa ñooñu kenn amu ci kenn nit koo àndal léegi sëñ sëñ Mourou Moussa ban capacité la am ak ban xereñte la am ba mën a jiite ñooñu parce que dañ koo tàggat ci xitma mu dem ci loola da ca dox ba biñ ko joxee yoonu murit mu mën a ànd ak mag ñooñu jiite leen ci xitma ba ni nga xamee ni war nañoo taxawal jumaa ji mu gis ne lii naalub sëñ Tuubaa la boo xam ne waxoon na ko ca faw sëyni bu yàgg muy wal tusbitan fii jamaatan tuqim asalawaatil xamsa daaban yaa hakim sëñ Mour Lamine Diop am na téere bu mu tudd nubsatu taarixiya li ci wax lu jëm ci wàllu jumaay Tuubaa jotaay bu yaatoo yaatoo yaat lu bëree bëri la ci nettali ci ñor mu ñoroon sëñ bi ak mbooloo ma fa teewoon ci mag ñi sëriñ bi di leen leeral jumaa ji ak ni mu ko bëggee ni mu bëgg mu mel ko ba mu mboolem ña nga xam ne teewe woon nañ ko waaye sëñ Mourou Moussa xam gi mu xam loolu ak yëg gi mu yëg ni sëñ Tuubaa tàggat nañu ci ñu xitmaal ko tax na biñ ko proposé xamal ko ne yow li nga bëgg a defar amaguñu jumtukaay yu mën a àgg foofu lenn rek moo mooy da ngay wut ab raay te raay bi njaareem lay am boo jëlee ab raay nag fexe ba mu dem Touba bagage yi mën na ci jaar pour dem Xaadim Jaañ mi nga xam ne moo bind économique murit di économiste bu mag bi mu évaluer euh, xaalisu ngurdu biñ tabaxee raay biñ defaree raay bi mu jógee Njaaréem ñëw bi ñu ko évaluer ci jamono ji nga xam ne banque centrale nekk nee na loolu mi ngi tolloog cinquante milliards ci jamono ji buñ ko doon xayma nee na loolu lay tollool kon jamono ji yaakaar naa ne maanaam yokk jom ak yokk góor góorlu lu war la ndax boo xoolee milliards cinquante milliards daanaka ba léegi nii ñun defaguñ projet boo xam ne a gën a foofu te tey la alal gën a bari tey la muri di gën a bari yu baree bari tey la tey la gën a am waaye nag gàllankoor yi tey la euh, gën a bari daa mel ne kon loolu mu liggéeyaloon sëñ Tuubaa bi mu demee ba jóge fi 45 sëñ Fallou it la ne woon ci mu Moustapha ne ci moom mu xam ne mënut a ñàkk liggéeyal sëñ Tuubaa moom it te liy bëggug sëñ Tuubaa la mu daal cay nekk. mag ñi ñëpp amul ci kenn koo xam na nii taloon nga lenn baa nga yittewoo lenn lu dul euh, liggéeyal euh, sëriñ Tuubaa léegi nag euh, njariñ li nga xam ne am na ko liggéeyal sëñ Tuubaa. Euh, ci la ñuy dikk ko mel ne Cheikh Ibra Fall dafa mosa yónnee ci sëñ Touba ne ko nee leen sëñ bi dama tawat bëgg mu ñaanal ma bi mag ñi ñëwee wax ko ko sëñ bi ne leen Ibra Fall nee leen ko wér ba mel na dërëm kenn mënu ko ndax booba li mu daan yónnee di wax ne daa taw dafa bari sëriñ bi daane waaye nee leen ko lar ko dalee ca karaw yu boppam ba ca ay wem lu ko cay metti liggéeyal maa ko teg bu ngeen demee nag nee leen ko yewi naa ko waaye soxla naa almet taalukaay ak sondeel boo xam ne bu may liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa moom laay niitoo biñ waxu Cheikh Ibra Cheikh Ibra fukki gaal yu almet wut ñeen fukki gaal yu sondel ne nañ ko yët sëñ ba bi mu ñëwee bañ jox ko sëriñ bi sëriñ bi di ko xool bàyyi ak mu ne Ibra Fall de daa xiir rek ba defal ma lu mel nii waaye addiyaam ji dinaa ko ci fayee bu ëllëgee danaa ko ci fay bu ëllëgee moog waa këram danañ dugg àjjana te kenn du lijjanti lan lan lañ doon def loolu suñu son bu Mbàkke bokk na ci ay nettalem nga xam ne ku ne ci ñoom rek ci mag ñi koo ci jël dana maam Thierno Ibra Fati dafay liggéeyal Sëriñ Tuubaa ba Sëriñ Tuubaa ne ko Thierno bu ëllëgee fuñ ma fayee fay la ak ñeneen ak ñeneen ci mag ñi koo ci jël mën ngaa wax lu mu doon defal sëñ bi ci ay addiya ak xitma koo xam ne mos na cee nekkal sëriñ te te mosuñoo tekki seen laxasaay sëñ daam Abdourahman Lo jàngalal jàngalal na sëñ tubaa nit jàngalal ko doomam jàngalal ko ab sëtam maanaam jàngal na jàngal na nit ba jàngal doomam ba jàngal ab sëtam alxuraanul karim te loolu lépp nekk ci toolub sëñ tubaa moo taxoon euh, moo taxoon mu di ko def kon ñun suñu bopp la sëñ Tuubaa waxoon mag ñi ne leen saxaaba yi ñooy seen bàyyi ci diine waaye ñu nit dañoo war a jàpp mag ñi ñooy suñu bàyyi ci yoonu murit saa su ne ñuy jël jom jan amoon ak fulla jan amoon ak pastéef bañ amoon ci xitmaal sëñ Tuubaa di jéem a doxalee noonu sëñ Tuubaa nag lim indi ci xitmaal ko waxal ko boppam kenn xamunum toll bayit bi ci gën a siiw muy wax di hawaaija lazina daamu fii xidmati wahab lahum maaraamu bayit bi dafa siiw doon xolub xasida gi waaye xasida gépp da ci jaa ñaanal ñu koy liggéeyal ndax mi ngi ko tuddee jazaawul ihsaan lil quddaam maanaam fay ku rafet ñeel ñi nga xam ne ñoo may liggéeyal lu nekk ñaanal na leen ko ci biir xasida googu dem na ba ne ina inna lazina saara'u li xidmati fa lahumu diyaara wastal jannati gaa yi nga xam ne dañuy gaawtu di ma liggéeyal am nañ ay kër ca digg àjjana dem na ba ne képp koo xam ne liggéeyal na ma wala mu siyaare ma sunu borom na nga ko musal te na nga ko jéggal ay bakkaaram wa kullu man qadamani aw zaara fa fiir la lahu aw zaara dikk na ci ay yoon yoon ay misaal yoo xam ne da koy jëmale ci bu koy liggéeyal ak koo xam ne nii yaa ngi koy ñaqal di ko euh, di ko di ko sonnal kon mbokk yi euh, dañ doon tënk rek ndax ubbi gi sëñ Cheikhouna ubbi daanaka doyoon na sëkk waaye ñu doon ci soxlool di jéggalu sunu kilifa yi nga xam ne euh, ñoo ngi yëkkati kàddu yi ci seen kanam di ko tuub bu baax a baax te di leen ñaanal ñu yàgg fi te te yan bi nga xam ne moom la yor ci liggéey bi gën a woyof ci ñoom wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu wajalilaayi maskanitu baabaat misras mi abijaayi xayri ma nabaat